alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ndax jëfam rek eh, jar na ñàkkaa jooy xëy na xale la 19 ans rek la am waaye dafa doon liggéey te mission la mission boobu nag eh, fii la ko yàlla yemale. dañuy nangu dogul yàlla te duñ ko mës a jooy duñ ko mës a e na yàlla lool bëggoon na yonent bi lool bëggoon na Cheikh Tidiane lool bëgg na sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim lii moom ñu ñi ko yàlla xam nañ ko ci moom sëriñam bi nga xam ne moo ko tarbiyee di Ibrahima dafa mës a wax yàlla dimbali na la doom ji ma la may bëggul dul yàlla kon yow noppalu kon loolu doy na sant yàlla moo tax bi mu dogee moom laa njëkk woo woo oustaz mi jiite ndar teg si ayda mi nga xam ne mooy soppeem mu yaayam moo woo leen ñu leen ah a ma ko gënoon bëgg waaye yàlla ma ko gën a bëgg jël na ko kon mbooloo mi fi nekk képp rek dañ ko ñaan yàlla ñaan kese lañ ko dese dañ ko ñaan yàlla waaye waatal naa leen ni asu duma ko mas a jooy la ma waxoon démb rek yonent dem na ñu jooy jooy nu ngir demam Cheikh Tidiane dem na ñu jooy jooy nu ngir demam Mawlana Cheikh Ibrahim dem na jooy nu ngir demam lenn rek la ñuy jooy suñu wéetaay waxtu bu ma demee ba jooy aso rek xëy na wéet wala fu mu féete woon wala ni ma doon taxawoo looloo tax ma koy jooy waaye du ma koy jooy ngir dem na déedéet asu njëkkul dem ci man am lu ñu ko jiit dem ci man kon bu asu ñëwaatee ci man bu jooy tourné waat di la si waat te dañuy nangu dogal yàlla te nag duñ dina gëm yàlla pare def loo xam ne bokkut ak yàlla yàlla leen gëm tey yàlla leen gëm suba yàlla leen wóolu te yàlla mbiram yëpp lu mu dogalal rek nangu nañu lu mu dogalal rek nangu nañu biñ ko tiimee xam nañ mi ngi waaj keroog dañ gën ànd ak sago bi mu demee tey lañ gën a ànd ak sago biñ koy defar si lañ gën ànd ak sago ba tey rek yàlla nu may sago waaye sago bi nag du sama jàmbaar ndimbala yàlla la yàlla moom ma dimbale ba ma mën toog fii dékku lii yëpp yëpp waaye ku ne xam nañ doom res la doom res la dares bu daggee ci nit dara desatu fa te moom laa njëkk gis ci doom yoo xam ne moom laa tax sama dëgg kon bu yàlla defee lii dañuy sant dañuy sant sant bi nag dañuy sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima moom mi nga xam ne moo rey suñu xol yi ci yàlla ginnaaw moonu waxoon ni dee leen njëkk balaa dee di ñëw kon dee nañu ci déegoogu kon bu déegi ñëwee kon du saf duñu metti nag mais duñu saf te du metti boo xam ne sax dañuy saalit lu war a am na te ku ne xam ne ni buur bi day tourné te gan la goo xam ne du romb benn kër yàlla na yéex rek ci kër gu ne yàlla na fa yéex te yàlla na ko yéex a fayante di jeex wax mbokk yi ñëw yëpp ñi nekk bitim réew ak ñi nekk fii Sénégal ak sëriñam yi ñëw ak waa kër Baye ñëpp a woote Baba woote na Macky woote na suñ maamu Niass woote na Baye Mar woote na kër xalifa bi léegi leen coupé kenn par kenn kenn desul kon xalifa bi léegi lay woote ni nan jox téléphone bi waa kër gi ñu wax ne mi ngi jokk jottali njaal loolu rek doy na sant bokk ci kër ñu xàmmee la ba nga am naqar ñëpp yëg ni yow am nga naqar loolu doy na ku mu doytul dara dootu la doy kilifa yii jóg te yàlla tax ñëw si jataay bii te yàlla tax caaxaan indiwu leen fi xëy na dafa am lu gis si asu wala am lu yaakaar ci moom ak gis melokaanam moo tax ñoom ñëpp topp guddi gi ñi topp fajar gi ñëw pour gunge ko si ba kër këru dëggam la ma waxoon rek yàlla rek la bëgg suy togg naa ne sa togg bi dana yéex a ñor ndax da nga tool di si kar sikkar di sikkar di togg di sikkar di togg soo koy def nag sikkar togg bi dana yéex a ñor su ko defee mu ma lii laa am waaye nag li mu am doy na sant yàlla ndax doy na sant yàlla asu sama doom de jur laa ci am mais yéen a ko jur adduna bi yëpp jur asu amul ku ma woowul amul ku ma woowul ñi ñëw ak ñi ñàkk ñëw ak ñëpp woonal ma kon loolu rek doy na sant kon ñu ngi nuyu ñëpp di doole ñëpp njaal képp koo xam ne yaa ngi ci yoon yeewi nan la képp koo xam ne ñëwoon nga te yaa ngi yoon yeewi la téewuñu kenn Euh, gàntawuñ kenn ku am ngànt jéggal na la te nangu nañu yàlla ñëpp yàlla yàlla fay ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ah, seen sago nag mooy ngeen ñëwat fi beneen ci kuréel bii leen fi ginnaaw ñëw ay bis yu dàq ci yi waaye jalaal ak jamaal ñii la su jalaal bi ñëwee dañoo nangu fas la dañ koy war dama siy toog ba mu neex dama siy toog mu neex nag dawal ko ba fu yem rek mu neex bi jalaal bi ñëwee dama si daan toog ñëpp naan la jërëjëf kontaan nañu neex na waaye nag looloo fi am muñal ak félicitation ñu ànd muñal ak félicitation ñoo ànd ak sigil ndigaale ak félicitation ñoo ànd bu njëkk danaan ñëw naan félicitation tey dañ ñëw ni sigil ndigaale ah comme ñu nangu ñu nangu Kawlax ba Ndar sori na ñi jóge feneen ak feneen sori na waaye lii rek ngeen mën seen mbokku jullit gunge ko ba këru dëggam sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaan naa yàlla ñëpp di wax rek ngeen kon di ko ñaan yàlla xam ni mission la woon mottali na ko mission bi mat na dafay dem noppalu ji loolu rek kon ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum.